gars yi il faut pas que ñu nelaw feebar bi mi ngi fi ba léegi ku weddi daf la dalagul wala mu dalagul ku la jege te képp ko xamante ne ngi taxaw fi rek ci réew mi mucceguloo parce que bu lay daal doo ko yëg buy yëg si du la yëgal ne maa ngi ñëw mën nañ wax ne day yoot ba yëgsi te bu la jàppee dinga tëdd bon nag lu mel noonu bu lay yot di yëgsi te nga xam li tax bu yëgsee du la laal mais wax dëgg yàlla nga war a taxaw nag jël li tax bu yëgsee du la laal nga jëfandoo ko loolu nag du dara dudul masque bi xamante ne moom ngeen takk kenn ku nekk si yéen masque boobu bu ngeen ko takkee mais Covid bi bu ñëwee mais day romb dem mais du loolu rek mais yéen seen bopp bu ngeen ko amee doo leen ko mën a jox seen njaboot doo leen ko jox keneen parce que aar sa bopp baax na mais yërëm sa njaboot say doom say rakk say yaay ak ñeneen ak ñeneen ba doo leen jox feebar bi loolu itam responsabilité bu mag la boo nag takk leen masque yi takk masque boobu nag. ñun ñëpp ñoo ci war a taxaw le président de la république def na lépp lu mu war a def essayé na toutes les solutions dénk nañu politique yépp ñu ngi sur le terrain nuit et jour depuis le 2 mars mais fii ñu toll nii li ñuy ñaan sénégalais yépp mooy ku nekk xam ne mbir mi mi ngi sa loxo ñu ngi koy ñaan bàjjanu gox yi ñu ngi leen koy ñaan parce que koñ yi ak ruq yi ak biir néeg yi yéen yéen a am possibilité xam lu fa nekk dugg bon nag mission boobu jox nañ leen ko organiser wu leen xool nan ngeen ñu siy taxawale délégué de quartier yi parce que délégué de quartier dafa représenter état si quartier représenter maire bi tam si quartier ñu ngi leen koy demander.

bu toogee tuuti rek dana dellu parce que dana ah man kat gars yi mënatuma leen dara bon nag nañu taxaw bu baax parce que réew mi loolu moo mën a tax ñu aar ko